mbokki jullit yi taalibe yi ñu ngi nuyoo ñëpp nuyoo bi lislaam di ziyaar ñëpp di baal àq ñëpp te den baal yenoon yàlla boole jégal xanaa kay di dénk sunu bopp da dénk rek ragal yàlla ak topp yàlla di leen wax ni yéen jaam yàlla yi bisu àjjuma day bis bu barkeel boo xam ne yàlla ko gënal ci bis yëpp jagleel ko jullit ñi ci mboolem xeet yi ci des yëpp walis mbolam xeet gi des yëpp muy bis boo xam ni ko jagleel ay jagle yu bari bokk na ca bis la boo xam ne ci la ñuy taxawal jullik ajuma moom bisu ajuma mu bokk ci farata yi gën a feddaliku ci lislaam bokk ci ndaje yi gën a rëy ci ndaje jullit yi di ndaje ma ca gën a rëy sax moo xam danañ ci daje mu bokk ci farata yi nga xam ni ñu gën a faratawu xanaa kay lu dul arafa képp koo xam ni bañ ngaa julli ji àjjuma ngir doy dal ko rek doo ko def suñ boroom dana kaste sa xol te mooy dina ko muur ba leeru ngam yàlla dootu ci mënal ko loola ñëw na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko mu bis boo xam ni sopp nañ nga jagleel ko daal say jaamu yàlla naam bis bu ne jaamu war na la waaye bis boobu moom nga jox ko leneen ngëneel loo xam ne doo ko jox bi seen beneen yi ci des da ca féex da ca wéet da ca bari loo ci jaam yàlla loolu moom bisu ajuma ndax kat am nay ngëneel moom bisu ajuma ci beneen bis yi ci des ci xeyti jaam yàlla jaam yàlla gu ne baax na waaye rawatina nag jaam yàlla ci bis bi tedd bi di ko ajuma nga xam ne moo gën ci bis yi borom sonu taala moo defal xeeti jàll yëpp kenn ku ne bis boo xam ne da nga cay wéet da nga cay féex ngir jaam yàlla man caa teg sa yitte àdduna fële nag ba mën a jubli sa borom man koo jaamu baax noonu mu ko defal tam xeet wii bisub àjjuma kon di bisub jaamu ñeel xeet wii bis la boo xam ne ne weeru koor gën a weer ci des rek moom àjjuma noonu la gën a yeneen yi ci des bokk na ci ay jagleem lu dagan sax bisub àjjuma ngay tukki yow mi nga xam ne àjjuma war na la daganul ngay tukki lu dul gannaaw boo ko joxee ba noppi ci waxtu wa lu dul xanaa fa nga jëm am juma joo xam ne war nga ko faa mën a def wala ci yoon wi képp ko xam ne ngaa teew ci ajuma ji itam waroo jëggat nit ñi nit ñi tam ñi ñëw dañoo war a toppalante ña jiitu dem ci kanam ña ci topp topp ci waaye ñëw bëgg a toog ci kanam fu ne nga jéggat fa loolu itam nekkut loo xam ne eh, dagan na ci ajuma yonent bi mas nay xutba benn waaye di jéggat rek daa jekk-jekk dagg xutba ne ko toogal yaa ngi lor nit kon mbokki julut yi jullik àjjuma daal am na wàccuwaay bu mag ci lislaam ndax dafa bokk ci farata yi nga xam ne farate yi jëmm lañ ci mu kàllif mu kenn mënu ko defal kenn yow yaa ko mën a defal ci bopp boole ca it bisub àjjuma am na waxtu woo xam ne loo ca ñaan ñu nangul la ko yent bi moo wax ni am na ci àjjuma waxtu woo xam ne ab julit du daje ak moom ci ñaan du dul lu mu ca laaj yàlla dana ko jox ñi gën a bari nag ci borom xam-xam waxtu ne ña ko cay dàkk waaye ña gën a bari nee nañ mooy gannaaw takkusaani bisu ajjuma kon yow jullit bi nanga nga bari say ñaan lool ci bisu ajjuma waaye nanga nga bari lool la ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci la bisu ajjuma képp koo xam ne dem nga ca ak sa tànk jéegu boo jéegu rek jaam yàlla ak at lay doon koo xam ne koor yaag yépp la àndal ci biir jéegu boo jéegu ngir yaa nga dem ci jumaa ja jaam yàlla ak at lay doon ba ba ngay delluwaat fa nga nekkoon kon loolu mën nañ ci dégg ni dox gi xëy na moo gën bu fekkee moo ngànt teg ni képp ko xam ne ajuma ñëw na nga sangu ba set teel a dem ci jàkka ja te fowoo diglu imam ba la muy wax jéego boo jéego ba demoon ci jumaa joojee jaam yàlla ak at lay doon koo xam ne koor yaa gi yëpp la àndal bokk na ci yërmaande yi nga xam ne yàlla def na ko ci bisu ajuma bis la boo xam ne dañ ciy fare ay ñaawteef yonent bi aleyhi salaatu salaam de nee na waxtu yu juróom maanaam waxtu ba waxtu juróom diggante tusbaar ak taksaan diggante timis ak gee diggante subaak tusbaar maanaam diggante waxtu juróom yi daal ak ajuma ba ajuma ji si dañuy far la ne ci diggante bi li fekk njaxasoo ci ay bàkkaar yu mag bokk na ci li wanee ngëneelam moom ajuma ak ngëneelal julli ga ca nekk moo di malaaka yi bu ajuma ñëwee ñoom itam dañuy ñëw ne gërëm toog di diglu xutba bi ajuma daal mbokk yi mooy bis bi gën ci bis yi mooy sangu bis yëpp mooy bis bi nga xam ne ci la yàlla sàkkoon àdduna si yëpp mooy bis bi nga xam ne ci la ñuy dellu ci yàlla ci la àdduna tukki bal leen نولين xaq ñoo leen di baal yal nañu yàlla boole jégal rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عمته على لسان خبنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الخلق الكافرين والتف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم